salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi nuyu naa la bu baax. maa lay ziar soxna si lu bare bare Abdou Ñing. Abdou ñu fekk la fii nga xamante ne mooy marché Colobane. Euh, opposition bi di waajal li nga xamante ne moom moo nekk manifestation ñu gis jaaykat yu bëri opposé wu ci surtout ci période tabaski bi rawatina nag yéen ñi nekk Colobane nga xam ne da ngeen a jege place de la nation naka nga gisee boobu ndax ànd nga population bi génn def manifestation wala yow ban gis-gis nga. waaw loolu boo ma ko laajee dama ci fawra ak événement tabaski fi mu toll ñëpp gënandoo ak seeni i bagages ci tali bi di jaay ñi yor ay xar ñi yor ay magasin ay maga ay ay bagages yu sensible yoo xam ne du nangu ay événement yoo xamante ne nii day andi ay réer ak yooyu ci njaboot gi loolu du mos a arrange ci marché parce que bi passé man bari na samay feret yoo xamante ne nii euh, lakor mosal li nu door fii te leen na laal boo ñu ngi fànn waaw te xam nga loolu arrange population bi aussi jaakati xar yaa ngi nii ci ci ci ci ñu ngi koy waxati ci canal bi nii kasoor bu garaaf lépp ay xar la te xam nga loolu àndut ak ay ay réero yu ay yenn yenn violence yoo xamante ne nii maanaam du baax ci askan bi waaw man moom li ma ciy ñaawlu mooy loolu rek maanaam loo xamante ni daal saa su gënee ay bakkan da ciy rot ñi yàqu ci seen i alal ñi nga xam ne dañ doon doxi seen i farata ñi yor ay malade ay problème yu ne nit di ko doxi parce que dox yi bari na mais kenn ku nekk la ngay doxi te événement saa bu amee am na ñoom farata la ñuy dox waaw léegi nag ki doxi farata nag su daje ki nga xam ne ay caaxaan lay doxi xam nga ni ñooñu mënunoo def ndax da am malade war koo seeti hôpital nga am malade war koo yóbbu hôpital nga am ay rendez-vous yoo xamante ne nii du mën a ñàkk nga dem jëli ko te yooyu yëpp soo demee ba dajee violence bi nii ñu gaañ la ci wala ñu rey la ci xam nga loolu lépp bokk na ci li nga xamante ne nii luy yàqal askan wi la te askan wi moom lépp lu leen di jamal loolu la ñu bëgg waaye lépp lu leen rek ñun loolu moom vraiment arrangé wuñu waaw euh, gis neen euh, manifestation bi mujj amoon na naam ay euh, réeroo ndax dañu bañoon ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko mu génn këram waaye laata loolu amoon na manifestation rassemblement bu ñu autorisé woon te jàmm ci am ñëpp ko def ba pare dem ñibbiwaat gisoo ne état bi am na ci paax de responsabilité. waaw bu mag parce que ay nit boo leen jabootee tey jii ñuy jóg di def benn affaire war nga am benn sécurité boo xamante ne nii kat pour violence benn bañ a am kenn bañ cee gaañu. parce que mbirkat lu mu doon la lu baax te muy jur lu bon moom lu baax loolu dañ koy bëgg a interdit waaw parce que nee nu maanaam luy lu bon te defar sax moo gën dégg goo xamante ne day yàq kon donc lépp loo xam ne ñu ngi koy def mars day am waaye nag ci façon bi ñu koy defee moo tax ñuy wax parce que comme façon bi ñuy marché ñi nga xamante ne nii maanaam mas taxu leen a jox danoo jóg pour yàqal nit ñi ñooñu noonu euh, ki nga xamante ne nii mooy suñu njiit saa bu marché amee moo war a jël ay ngir ñi nga xamante ne nii dañuy yàq parce que bari na ci ñoo xamante ne nii jógunu pour mas mais dañoo jóg pour ut lu nu am te di ko am ci ay matériels yi jàmbur wala ci matériel nguur gi yooyu te yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne day yàqal askan wi waa te man loolu rafetlu ma ko ci waaw waaw jërëjëf. maaleykum salaam soxna si naa def. nuyu naa la. maa euh, ñu ñëw fekk la fii ni nga xamante ne mooy euh, marché bu euh, Colobane. xam ngeen ne tey la vingt 29 te nee neen euh, opposition bi dafay amal yi nga xamante ne mooy manifestation nguur gi nangu ko wala mu ñàkk ko nangu ñoom dañ koy amal yenn naka ngeen gisee. waaw metti rek parce que wax dëgg yàlla am réew moom du xeex wala xuloo moo koy réglé parce que réew moom li koy réglé mooy wax ba juboo teg lépp ci taabal ci parce que li ma gëm mooy marche war na mais ci kaw ñu autorisé ko bu ñu mën nañoo marche bu ñu ko autorisé aussi xeex bi dëgg pour man du du du du toj wala yàq parce que fii ay borom kër ñoo fi nekk daan seen doole saa yu mars amee vraiment li ciy loru moo ëpp li ci jariñu parce que sàcc yi buñ sañoon ñu mars dañuy këf alalu jàmbur yi di yàqu oto jàmbur yi ñoo xam ne seen yoon néew ci franchement man mars bi ma gëm dëgg mooy na nit ñi prépare seen carte bu voté amee bu fekkee ànd ak état bi nga voté sanction soo àndeek état bi nga voté mais man li ma gëm dëgg-dëgg mooy voté carte laa gëm mais gëwuma yàq gëwuma yàq àllu nit gëwuma xeex man violence moom franchement gëwuma ko gëwuma xeex man li ma gëm mooy liggéey Euh, soo amee lan naqari nga xaar ba élection yi ñëw nga woote soo ànd ak état bi nga voté contre soo àndee ak bi nga votel ko mais moo gën al jël sàcc yi fi mu toll nii bu ñu sañoon tey mars am nit ñi nag yaakaar naa dëkk fi mu toll état bi war na gëstu doomu aadama yi nit ñi tal nañ leen vraiment lu dul xeex ak xulo ak yàq loolu daal moom vraiment bu ñu sañoon daal lépp nekk ci jàmm ak salaam parce que Sénégal ci jàmm ci la waaye boo gisee ne ñu naan yàq day am saccage day am day fekk manifestation bi autorisé wuñ ko gis neen le 8 juin passé dañu autorisé manifestation bi opposition bi ñëw amal ko ci anam bu rafet pare ñibbiwaat te dara yënguwu ci gisoo ne gouvernement bi tamit moom dafa war a jël ay motukaayam bu manifestation waree am ma autorisé ko nit yi nekk ci waaw buñ ko parce bi bi passé biñ ko autorisé franchement nit ñi dem nañ marche fii lañ jaar ñibbi avant 20 heures kenn ku nga sa kër dem toog bi wul nag vraiment ñun liñ jël ci ay lacrymogène dëgg yàlla métti na trop parce que yow doo def doo wax da ngay liggéey ñu door lay lacrymogène yoo xamante ni sa yow mën nga cee jële feebar boo xam ni na ma yàlla baal doo xam fu mu jëm bu ñu waree marche li ñuy marche nekk loo xamante ni lu valable la dañ leen autoriser ñu marche bu paree kenn ku ne ñibbi am jàmm am salaam man daal franchement loolu laa ko gis waaw loolu laa gis daal. d'accord nan ngay wax jeunes yi bu tey jii bu fekkee manifestation. waaw bu manifestation amee nañu xam ni wallahi azim politiciens yi jaruñu ko. jaruñu ko amul benn politicien bu ko jar ñi ci opposition bi ak ñi ci pouvoir bi nañu gëm seen bopp te liggéey jaamu yàlla xam ne nit ku ne li lay jëriñ yaa koy liggéey bu ñu xeexal kenn bu ñu xulul kenn seen xeex nañ ko teg ci voté bu voté jotee ñu voté seet ki leen arrangé ñu votel ki leen arrangé ñu bañ ñu bañ koo votel bañ a xeexal kenn bañ a xulal kenn parce que ku ci gaañu da ngay perte rek du mujj fen wasalaam. waaw ah, maaleykum salaam soxna si ñu ngi siyaar bu baax barke sëñ naa naas kay Euh, fii lañ la fekk ci Colobane mën neen xam ci lan ngay yëngu. waaw ñun nag ci lépp lañ yëngu tubay daal lépp daal lépp waaw daan suñu doolee bañ ku ñu ree rek yaa ma gën a xam waaw tekki bu mu gàccee. ñu gis fan yii ne euh, dëkk bi euh, am na ay yëngu-yëngu ci diggante opposition bi ak parti au pouvoir bi. ñu gis ne opposition bi dafay waajal li nga xamante ne mooy manifestation tey jii le waaye nag préfet bu Dakar bi ak accepté wut loolu noonu autorisé wut leen à manifestation bi naka nga ko gisee ndax jeunesse bi dañoo war a toog xaar bañ leen autorisé wala dañu war a. waaw beneen manifestation moom maanaam ñun dañoo judd fekk ko fi quoi yaa ngi dégg normalement war nañ leen may ñu def ko quoi mais ñun ñi nga xam ne tey jii ay ndaw la ñuy uti lu ñu am. yaa ngi dégg fayeku ñu weer bu dee ñun si maanaam ñu xëyul yaakaar naa ne duñ joxe dépense même bu dul ñun sax am na suñuy mag yoo xam ne ay nañ jabar xam nga ñun amuñu dara ay célibataire même lu métti métti bu ñu wàccee dañuy jox maire beeg tout tànk yeeg yooyu yaa ngi dégg te instant ñu ngi jub si événement yaa ngi comprendre tey manifestation bu amee fii yàq yi day bëri fii nga gis xama rek yaa am gën a xam fu mbooloo daje di nga gis ñoo xam ne tey ji lu tax mbooloo bi jóg sax ma ñoom loolu lu leen yëkkati daal comprendre nga waaw te loolu naat bu ñu si mënee dimbale rek dina baax quoi ñu may ñu xama rek aafiya quoi am gars yi moom. dundee manifestation 17 juin bi passé ndax gisoon nee na amoon. waaw bi jàll yëngu metti na trop suñu liggéey yaaku war na Serigne Touba metti na trop trop trop trop ñi nga gis ñoo xam ne seen matériel dafa yaaku ñi nga xam ne am na suñu benn grand gain bu nekk fii yoonam nekkul si. wër na sëñ Fall waaw xam tey ji manifestation bu amee nga gis groupe jóge fële ne keroog sama waa ji kii ni di jaay seen yi fii. keroog gars yi ñoo dal si bagage am affaire yëpp jaxasoo am na matériel yu bëri daf ko see perte yaa ngi mu perte si 300000 am yoo xam ne mu ngi woon si poosam ndekete gars yi yóbbaale nañ ko yaa ngi comprendre imagine loolu loolu dafa metti 300000 am yooyu bu newoon daa am lu si waroon a def yaa ma gën a xam instant yi lor nañ ko loolu yëpp manifestation moom moo ko waral bu ñu si mënee dimbale nañ ñu si dimbale quoi parce que tamit xam nga rek mooy loolu daal parce ñun yaakaaruñu kenn daal suñu doole lañ yaakaar bu ñu mënee dimbali si rek te yàlla rek tax ngir jëm rasulullah dina baax trop. kan di euh, wax kan ngeen yaakaar ne moom moo nekk responsable ci mbir mi ndax gouvernement bi nga xamante ne autorisé wu ko wala opposition bu nar a braver euh, interdiction. waaw man de dama gis ni maanaam kii nga xam ne maanaam mooy njiitum réew si lu may yaakaar moom. normalement war na may gars yi moom mun na leen may autorisation daal ñu manifester parce yaakaar naa bu leen may autorisation mun nañoo manifester te affaire du metti quoi si lu ma yaakaar quoi. barke Serigne Touba parce que affaire yi moom sa waay mooy loolu dañ def tempo tempo Sénégal gi moom ah ñun ñoo ko bokk waaw bu ñu xaajoo yaa ma gën a xam na lépp ànd ak dal rek discipline. ani yan matukaay ngeen jël si toutefois tey manifestation. waaw manifestation instant ñun dañoo xëy si sax parce que xëy si nañ mais bu ñu gisul woon lu ñu xam dañuy laale parce que fii Colobane la ñun dañuy xëy di takkal da nga gis koo xam ne imagine nga jógee sa gaale toute la journée nga ñëw fii doo sooxeeku maanaam manifestation bi ñëw yàqal la passe bu ngay ñibbee sax. xam ñun sax garaaw lu métti métti yor nañ suñu scooter boo xam ne tey bu manifestation amoon bu ñu amul paas mun na yegg suñu scooter dem bilaahi di naqaru nag sama copain bi fii la 300 mille am la gars yi dóor si manifestation bi jaal moom mooy jaay seeni fii waaw keroog ba gars yi dalee si kawam gars yi yóbbu nañ 300 mille am yoo xam ne alalu jaamur la woon quoi waaw mooy la dafa metti de ah waaw ñu ngi tuub nag kàddu gi lépp loo xam ne dëng na si rek waaw ñu ngi koy jégalu quoi parce que lu rafet rek lañ si jublu daal waaw di maanaam li ngeen bëgg seen liggéey bi suñu borom gi leen ko yaatalal may leen si jaamu quoi tawfeex sëñ Fallou ah. merci gannaaw. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñoo lay fay bu baax a baax. Ah, Abibou Niass. Abibou Niass ñu fekk la fii nii ci Colobane mu mel ni rek fii ni ngay daane. waaw fii la ñuy daane suñu doole. ñun dañuy teel a xëy dañuy guddee wàcce ñun yaakaaruñu kenn ku dul borom kon fa yàggoon xëy waar si daal bu jeexee jeex na mais ñun manifestation yi arrangé dara parce que bu ñu xëyee ñu jugee fu sori. nga jógee fu mel ni Saalum ginnaaw Kaolack nga jógee fa ñëw fii di liggéey ñun duñu xëy muk dañ manifestation affaire yoonu ñu arrangé wu ñu daal xam nañu lu ñu arrangé ñu xëy waar ñu wàccee ñibbi toog suñu kër yi fii ñu dañuy yàq suñu bagage chaque instant heure bu manifestation amee yéen da ngeen sa sa manifestation amee man sama bagage yi mënu ma ko laali fët fët parce que bagage yi daa bëri boo ko naree laali gars yi mën nañ si rek këf ko wala ñu yàqal la say bagage chaque instant loolu daf ñuy dal fii nii barke yonent yàlla nga dundee woon manifestation 17 juin bi passé mét dëgg la def si man barke alxuraan sama bagage dafa am lu si yàqu yu bari yoo xamante ne bii nii mooy loolu noonu ak yeneen yi si yëpp man ay seen laay jaay ak yeneen si des yëpp mënu ma la ko wax sax yeneen yi si yëpp yëpp mënu mënu ma la ko détaillé lépp daal parce que am na loo xamante ne maanaam kenn mënu la ñoo ñëw dugg saccagé sa bi wala nan. waaw ñoom xam nga ñoom buy ñëw dañ ñëw ak mbooloo xam nga kenn nit mun a jël ak mbooloo yow da ngay def li nga mën ak ñoom ñu def li ñu mën waaw dañuy jël liñ soxla yow nga ferbu doo say bagage lu si mën de xew daal yow xam ne yaa koy mais ñun daal bu ñu mënoon dimbale te yàlla tax ah ñu arrêté nañu ko ñu liggéey góorgóorlu ñu liggéey moo ñu tax a jóg rek su baaxee daal mooy loolu quoi barki yoon noonu rek pour bëgg manifester dafa am li nga xamante ne moom moo leen naqadi ci li nga xamante ne mooy euh, ni ku yor réew mi nu mu koy doxalee xëy na neexu leen te bëgg neen mu soppeeku ba tax na ñoom ñuy amal euh, manifestation léegi yow ma lay laaj kan ngay euh, kan ngay lii daal responsabilité bi kan nga koy jox ndax opposi euh, opposition bi la wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor. Euh, xam nga ñun ñun dafa am lu ñun lu ñuy casé ñun ñi nga xam ne moom la ñuy casé mooy suñu carte d'identité daas ko naanal xam la wax bu jotee nga dem wote ji moo gën coow lu bëri lii xeex dugg na fi génn fii amul sens xam la mooy sens bi ki yor réew mi mooy dogal ñun mënuñoo dem xeex ba ba mu bàyyi li muy li muy def man su ma gis-gis loolu laa yaakaar bokk. bu nekkee xeex kese moo koy indi loolu dañuy sonal suñu bopp rek parce que moom mooy kilifa gi quoi dañ ko bàyyi mu doxal li muy doxal bu wate ñu dem wate ji. nga nu muy doxalee ah jaaroo yoon jaaroo yoon mais ñu mënuñu si dara am na leen si man man xeexloo ma kenn waxuma kenn demal manifestation man waar laay def quoi bu jeexee jeex na ñun ku ñu jàppale ñu jàppale suñu waar amuñu leneen lu ñu wax quoi loolu loolu. am lenn li nga xamante ne dañ ko seetlu maanaam bu ñu autorisé manifestation nit ñi dañuy dem rassembler wu wax lu ñuy wax si fulla ak fayda bu ñu paree ñibbi te dara du ci yëngatu waaye jafe-jafe bi moo nekk saay buñ ko interdire rek dañuy gis ne yéen da ngeen ci daj lu méttee métti waaw kon lañ ci kon ñi nga xam ñoom ñoom manifeste moo leen tax a leen may ñu dem manifeste ñi nga xam ne moo ñu tax a jóg ñu bàyyi ñu liggéey quoi man loolu laa gis nice merci waaw kontaan nañ ci yow ah ça va bien alhamdulilah euh, Lin Boy yow fii nga nekk fii ngay waaw waaw fii laa nekk fii laay liggéeyee. alors en tant que jeune ñu gis ne tey jii nga xamante ne mooy opposition bi dañu woote li nga xamante ne mooy rassemblement manifestation waaye nag euh, ñi nga xamante ne ki nga xamante mooy préfet bu dakaar daf ko daal di interdire yow lan moo ci sa gis-gis ndax manifestation bi dañ ko war a amal wala dañu war a topp ndigalu. waa topp ndigalu préfet bi mooy yoon mais su fekkente ne mooy yoon ba nga xamante ne dafa nar a jur fitna mais comme. Euh, ñoom dañ leen ko autorisé wul kon il fallait que gars yi tamit daal di koy def ñoom far la force loolu lañu wax mais comme ay xeex ak xuloo mu ngi ci am nañ leen bàyyi rek ñu def ko pacifiquement noonu moo gën ndax moo gën nit ñi nga xamante ne ñu ngi ci ñàkk seen bakkan ñun ñu ngi nii bu fekkee manifestation am na du ñu liggéey te tabaski bi mu ngi nii di jub ku nekk ay xarak yeneen ak yeneen aussi war la kon nag tey bu ñëwee ba ci maanaam ci cëppaandaw événement ngi tamit ñu bëgg a waral yi xeex xuloo bi tamit xam nga ñun dañuy jaaxal. te am na ñu ci bari seen loxo jotul ci seen ginnaaw dañuy taxalee rek réew mi kenn ko ci nekk xam na ne mu mel comme yaramam ak féppay méttee ndoo kon nag bu ci lii deelee koo tamit day gën a doy waar waaw. Ah. gis nga bi la nekk di ñaxtu ñoom ak population bi teg nañ ko ci yoon. Ah, waa teg nañ ko ci yoon ndax xam nga maanaam lu ñëpp waxee dëgg tey jii moom kese su ko doon xeex kon kon dañ naa newul ci yoon mais mook population bi yëpp ñoo àndandoo da ngay gis am ñu jara ñu taxaw. maanaam ne rey leen ma maanaam teg seen bakkan xam nga ne loolu kon ne nekkul lu loo xam ni maanaam nekkut loo xam ne ni nekkul ci dëgg ne mu nekkee ci dëgg loolu moo tax waa population bi yëpp fekk si ko ànd ak moom. pour jàmmi réew mi am pour ñëpp nekk ci jàmm lan nga yaakaar ne moom la gouvernement bi. xanaa ñu toog waxtaanaat ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar président mënul génn réew mi kii nekk président fi lay nekk. doomi réew mi la fi jëla juddoo fi la yaro te nguur tamit kenn du ko ñëdd dangay ñëw sa moroom ne ñëwaat encore kon nag nañu toog ñu waxtaan kilifa diine yi tamit ñu wax ci ñëpp wax ci ñu daal di nekk benn Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xarñaar ñaar nañu waxtaan rek àdduna amul solo ndax boo xoolee euh, nekkul ne moom kese moo ko fi mës a nekk moom ne ñeneen ñoo ko fi nekkoon ba tey ñu ngi nii dem nañ kon moom tamit day dem moroomam ñëw à chaque fois nañuy rafetal ndax ñun ñëpp daal gaal gi daal en tout cas suñu gaal la daal. nee nga euh, saay bu manifestation amee te autorisé wuñ ko yéen da ngeen ci am lu metti da ngeen ci daj lu métti ndax tey jii nii le 29 bi euh, manifestation bu ñuy waajal ndax jël ngeen ci seen motukaay si toutefois manifestation. waa jël motukaay moom mënul passé toog sa kër rek toog sa kër rek te xam nga ne kuy daw dépense moom boo toogee sa kër moom ah da nga cee mujjee loru tey jii comme amoo benn doole bi. bu nee manifestation am nañ te autorisé wu ñu ko mu leer ne day am violence ah, nga toog sa kër ba kan jàmm la bëgg bu ko am lii de laa gis. daal da nga ñëw fii rek jël waa tey waa avant may ñëw nag moom dama am ci lu leer naa ñu ma doog di ñëw ndax bee passé moom bettoon nañ ma mais bi moom duñ ma bett ndax bi waaw nee nañ annulé nañ affaire yi ndax kilifa diine yi wax nañ ci waaw ma daal di ñëw waaw ma daal di ñëw. merci. ok merci beaucoup. aleykum naa leen. tur bi nag la. tur bi Issa Ndiaye la. ñu fekk la fii ci Colobane ndax fii ngay daanee sa doole wala da nga fi jaay. waaw non fii laay daanee sama doole. Mhm. man fëgg jaay laay jaay waaw. alors ñu gis fan yi dëkk bi am na yëngu-yëngu rawatina nag bu opposition bi organisé li nga xamante ne mooy manifestation 29 bi ñu gis ne ku nekk ci wax daal ba démb ay zéro ñu gis ne préfet bi interdit na bi la manifestation yow ban jàngat nga ci am ndax dañ koo war a amal wala. waaw xam nga préfet bi euh, dafa dafa lu ñu lu ñun suñu droit la ñuy interdire man nag naw naa Sonko ndax fi ñu toll nii ñun ay taaba taaba lañu dix jours au lendemain la ñuy dàq suñuy dépense wallaay na si man nag Sonko lu mu bëgg lu nekk maa nga ca waaye fi mu fi ñu dañuy taaba taaba gis nga xoolal yow miy filmé filmé lii nga woon nga wane ko filmé lii ñun lii la ñuy liggéey ci lii la ñuy daan suñu doole. waaye mais injustice bëgguñu duñ ko bëggal kenn ñun ci li ñu nekk ci yoon la ñu nekk constitution bi moo ñu may ñu war a euh, euh, ñu war a mën wu dañuy manifesté wu mais Sonko comme comprendre na ñu néew doole yi fi mu ne nii ñu ngi ñu ngi jëm ci julli gi te wax dëgg yàlla ñun ñëpp ku ci nekk xa bu baa ngi lonk sa baat te amu ko xar alhamdulilah. nga bu ñu amalee manifestation bi du doon li nga xamante ne dina leen non du doon li ci Sénégal fi ñu toll nii parce fi ñu toll lan yéen waa Colobane non du ñun waa Colobane rek société bi yëpp parce tabaski euh, borom xar yaa ngi di seen xar gars ngi di seen bagage teg exposé te ñëpp ku nekk li nga yaakaar lépp ci pour sa defal ko sa njaboot ci lii nga nekk ci nga ko yaakaar xoola borom portable ci di fomp ni li muy li ni ci la yaakaar pour wax suñuy ñi ñuy indi suñu bagage bu leen indi bagage ndax suba duñu xëy ci fajar la ñu woo ni leen indi leen suñu bagage ndax son nee na euh, euh, euh, dañuy fomp fomp affaire yi mais bu ko Sonko safaloon ñun dañuy dem tëdd suñu kër te loolu baaxul ci ñun wax dëgg yàlla moom nañu àndal nag man moom man moom laa àndal sama baat ni poto waaw gis nga ne dañ ko war a bàyyi ba beneen waaw nañ ko bàyyi ba feet yi passé buñ buñ tabaskee ba pare ñu safal ko ba mu saf waaw parce que suñu 17 juin bi ani lan ngeen non liñ ci dund liñ ci dund ñëpp Sénégal yëpp moom lañ ci dund parce que liggéeyuñu war nañoo liggéey liggéey ñu xëy ba yenn heure yi ñu kii jour boobu moo la waxee ni dépense yóbbu ma ko sama kër ba ma demee damaa lijjanti feneen pour dépense te loolu c'est pas normal bëgguñu ko mais tamit fekkee dinañ euh, maanaam man nangu naa xiif tey fekkee suba dinaa lekk man tey nangu na maa xiif su fekkee suba dinaa lekk waaw kon loolu la ko su Sonko woon euh, doxalee su ko tegee ci yoon dañuy ànd ak moom nag defal ndànk beneen affaire nag dañ koy wax Sonko bu fi ñëwee def ni ni waa ji fi nekk def ñu def ko ni ñu def waa ji wala ñu def ko ñu ko raw loolu moom nu ko dégg waaw. ñu nekk ñu fi kenn lu senegal ñu senegal lañ fi nekk ñun Sénégal lañ bëgg bëgguñu Sonko bëgguñu Macky Sall Sénégal lañ bëgg. gis ngeen ne daal ni nguur gi di doxalee euh, jaarul waaw loolu kay lu ne fang kenn du ko jeex yow mi may introsé sax xam nga ni li nekk ci dëkk bi gëj na nekk li nekk ci dëkk bi mu toll nii gëj na fee làq doom duma doom moo fi nekk waaw. merci maaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax Pape Ndaw la. Pape ñu fekk la fii ci euh, Colobane ndax fii ngay daane. waaw fii la fii la ñuy yëngoo waaw waaw Colobane waaw fi la ñuy daanee doole waaw. gis ne fan yi dëkk bi neexul depuis euh, manifestation bu amee ba léegi ndax gis neen saa bu ñu ko organiser ñi nga xamante ne mooy opposition bi euh, pouvoir bi daf leen koy bañal wala daal nit yi forcé def li nga xamante ne mooy manifestation te lu ci ëpp dañuy gis ne ay yàqu-yàqu dañ dañ ci am alors manifestation 29 bii nii ban jàngat nga ci am ndax dañ koo war a def wala dañ koo war a dàq euh, actuellement nii ñu dàq ko man yaakaar naa ne même Sonko sax bu xalaatee jarul sax muy ñuy déglu nit ñi ba xam dañ ko war a dàq war a waruñu ko dàq parce que Sénégal toll na foo xam ne franchement tal nañ leneen lu dul perte benn seconde benn seconde rek bugguñu ko perte ndax dund bi cher na nit ñi dundee metti na affaire bi jafe na léegi nga bëgg ko boolee génn loo doomu aadama yi tabaski ñu ngi naan ay 10 jours moo ci des am na borom kër yoo xam ne waxuma seeni doom mais buum sax bu ñu yeewee xar amuñu ko léegi nga bëgg a jàpp ñooñu génnewaat leen ci dëkk bi ak xale yi ñu jaxase dëkk bi anarchie amaat bon da yàq lu bari daal day yàq lu bari. Euh, man depuis démb maa ngi koy wax ak sama boy yi mag naan leen du temps yi quoi affaire bi du temps bi ñoom nag comprendre wuñ ma woon quoi parce que ñoom ay ay sonko lañ ay sonko yu am doole lañ ñoom dañu bëgg sonko. naan ma na yëngal na yëngal ma ne leen. waaye manifestation bi wax ji moo nekk Sonko rek wéetu ci wala opposition kese wéetu fi tey ji sénégalais bu nekk bu sonn rek day bëgg carrément génn wane coonam. waaw mais xam nga rabu àll sax boo ko tëjee ci néeg rab rab boo xam ne par exemple muus boo ko tëjoon tey ci néeg xam nga muus amul doole yaa ko ëpp doole fuuf mais bu xiifee mar sonn billaahi boo ubbee bunt bi dalay song foofu la sénégalais yi toll dañu sonnu sénégalais yi dañu sonn tellement li ñuy dund Macky Sall mënu ko xam xam nga li tax munu ko xam pale bee boo fa nekkee yaakaar naa ne génnoo dox ci trottoir lu Sénégal yi xol li sénégalais yi di dund pour nga xam ne ñu ngi souffrir du yomb quoi te pourtant ñu ngi dund lu metti tey jii bari na kër yoo xam ne boo fa duggee buñ góorgóorloo ba togg añ duñ togg reer reer yi ci mbedd yi lañ koy taxalee ay mburoog fataay ak yu kenn xamul billaahi wallaahi kilo ceeb la ñaata lay jar pour l'instant liitaru diwlin tey 5000 nga doon jox sa jabar mu dem marché boo ko jox boo ko joxee tey junni da nga ko indil problème bu demee jën yu baax sax mënu ko dugg indi ko loolu moo waral sénégalais yi léegi ku jóg rek ne marche marche marche mais bugguñu ko gën a lu ñu ah buñ sañoon dañuy xëy dem ci barabu liggéeyukaay yi toog liggéey naay su wàcc dellu ci njaboot gi mais su fekkente ne nii nag ah ñi yàlla def ñu jiitu jiitu nañ mais yërëmuñ ñi ci suuf mais noonu rek lay demee noonu rek lay demee ah. mais manifester moom man franchement ànduma ci woon moment bii moom ànduma ci woon wax dëgg yàlla parce que liggéey bi lañ gën a taal daal am ci xar yi ak xartum yi euh, teral njaboot gi loolu daal lañ gënoon a gis kat taxaw naan dañuy manifester franchement waaw. gisoo ne buñ ko autorisé woon tamit dina doon gën a am jàmm ndax nit yi dañuy dem def ko pare. ok buñ ko autorisé woon amul problème parce que kon du jar ñuy lalli du jar ñuy tëj du jar ñuy def dara. dañuy dem dox ko ci jàmm kenn bañ a yàq bu ñibbi jotee ku ne jaar sa yoon loolu yàqul liggéey bi ñi mu ñor ñoo ñooy dem defi ko ñi mu ñorul toog liggéey mais su fekkente ni wuñ leen pour ñu def ko parce que ñun bii passé dañ julli jumaa ñëw añ sax presque defuñu ko lacrymogène yi commencé gaa yëpp lal yi xam nga loolu neexul daal neexul daal franchement waaw ah oui ok. jaajëf ah, maa ngi lay fay. maa ngi tudd Ababacar Sall. Bakar ñu fekk la fii ci euh, Colobane ndax fii ngay liggéeyee wala da fi jaar rek. bon fii lay liggéeyee waaw euh, naka nga gisee fan yi euh, dëkk bi manifestation yi day am du am opposition bi pouvoir bi ban jàngat. xam nga dëkk bi soo xoolee mën nga ne li fiy xew ñun ñëpp dañ ci am part de responsabilité mais responsabilité boobu. bon ñun ñi nga xamante ni peut-être ñooy liggéey di tàqaleeg yooyu bon bariwul lu ñu li nga xam ne nii responsabilité buñ ci am la mais ki nga xam ne mooy le président de la république muy Macky Sall moom dafa war bàyyi jaay doole bi mu nekkee ci dëkk bi parce que dëkk bi bu ñu waxantee dëgg rek pour ñu bañ a nekk di làq-làqal daal manifestation dañu koy autoriser encadré manifestation moo gën a yomb tas manifestation nañu waxante dëgg parce que boo xoolee première manifestation bi amoon nit ñi bari nañu foofu ñu encadrer ko ñu def ko ci jàmm mu jàll. deuxième fois bi ñu tas ko ay nit dee ci te ñooñu ay sénégalais lañu quoi dañu bokk ci biir Sénégal ñoo ñu dee noonu comprendre nga seen avenir nekkoon biir Sénégal bu kenn wax yàllaa ko dogal ñoom ñoo leen rey. comprendre nga parce que bu ñu autorisé woon manifestation bi dee yooyu du am gis nga kilifa yi war a wax tamit nañu wax dëgg bi gis nga dëgg ñaari nit duñu ko am kii dafa war a def lii kii dafa war a def lii am na kuy tooñ nañ ko ko wax nañ ko ko wax directement ne ko faal manifestation yi del bàyyi di ko autoriser nit ñi di ko def dans ce cas nag d'accord naa buñ ko autoriser teg ko ci yoon ku jàdd yoon ñu duma la comprendre nga mais di tere manifestation vraiment war na mën a ñàkk ak fi situation Sénégal tollu comprendre nga beneen bi ci topp mooy Ousmane Sonko bi nga xamante nii moom mooy woote manifestation man damay am ñaar yoo xamante nii rek moom laa koy wax ci lu ma seetlu ci yi nga xamante ne nii man moom tey bu suba bu nekkoon mhm. élection moom laay voteel du ma ko nëbb comprendre nga benn bi mooy que ni jour bi mu wootee bu jour bi mu waxee place de lobe l'Obélisque ne bu euh, bu manifestation amatee bu ngeen demee ci seen kër yi bu ngeen ko tojee di ngeen fa fekk ay milliards loolu du waxam waru ko wax loolu man xaaruma ko ci Ousmane Sonko man dama ko déglu bi mu commencé génne di révéler li amoon assemblée nationale ci problème mu impôt yi foofu laa ko commencé bàyyi xel vidéo bu mu mës a def nag déglu naa ko idéologie doyoon ma trop nag ma koy xaar tamit ci muy wax wax yu nga xamante ne nii comprendre nga daf may yee di ma éveiller comme ni mu ko defee sama moroomu sénégalais yi comprendre nga mais pas ci euh, man d'accord naa moom ci muy ñaax nit ñi ci ci ci ci ci comment encore mu ñu muy ñaax nit ñi ci ci résistance mais pas ci violence. kàddu boobu rek laa am bu nga xamante ni gis naa mu def ko te vraiment man en tant que ku nga xam ne nii tey Sonko laa faral loolu bëggatuma mu dégg ko ci ci ci ci ci ci ci moom quoi. beneen bi ci topp mooy que ni ñi nga xamante ni ce sont des insulteurs du ma wax ne moom moo leen yoon non. mais bu fekkee dañuy mbuboo ne moom la bu fekkee mosul wax ci ñoom itam na wax ak tamit ñi xam ne dañuy xaawi sutura nit ñi di génne awra nit ñi ci internet yeeg yooyu noonu comprendre nga bu ñooñu bu mënee am kàddu parce que nit la bi nga xam ne nii ku am influence la ci Sénégal man mën naa jàpp ne Ousmane ko instant bi moo ëpp influence Macky Sall ci Sénégal mu wax ak ñooñu bu fekkee moom la ñu faral ñu bàyyi di def yooyu parce que sutura dafa am solo te ñun dañu koy xaar ci système bi changé système bi nag li koy changé éducation def ci bokk te loolu bokkul ci éducation vraiment di xawi sutura nit ñi xam nga ku wax joxe sa avis ñu saaga la ni ci point boobu noonu ki nga xamante ne mooy leaderu Pastef bi Ousmane Sonko génn na indi ci ay leeral nee na moom kuy saaga bokkul ci moom je pense que côté boobu noonu euh, mettre na le points sur les i alors yow en tant que jeune tey ji yaa ngi naan manifestation bu amee day métti ci yow est mën neen xam 17 juin bi passé ndax euh, li ngeen xam ne jotoon ngeen ko dund waaw mais xam nga manifestation bi day def ay handicap parce que doo liggéey day yàq liggéey mais man manifestation bi handicap bi mu def duma ko jiiñ Ousmane Sonko ko duma ko jiiñ yeewi askan bi man Macky Sall laa ko jiiñ parce que bu ko encadré woon j'espère que moo doon gën a yomb nii mu demee nii comprendre na lacrymogène yi ñu nga xam ne ñu ngi koy sànni saf lool ci askan bi nañu xam ne ci ay sénégal sénégalais lañ koy sànni aussi te boo ko sànnee ci kuy manifester day laal ka nga xamante ni dafa toog jàpp njaamuram foofu noonu amul lenn lu ma fa mën a teg toor ñi nga xamante ni ay opposant lañu ci seen droit lañu nekk ku gis lu la naqari da nga war a te dëkk bi ku manifester wul na nga bàyyi nit ñi ñu manifester bul bul xaas bul def dara comprendre nga lu ma la parce que nag neexul ba neexul mais dëkk bi li ñu fi war a manifester bari na ñu ko organiser encadrer leen ñu manifester démocratie am ci dëkk bi comme ni mu fi amee woon Sénégal jëm kanam j'espère que loolu moo gën quoi ça. d'accord merci